أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن مكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين bokki Aman Media Group Nuuru Daarayni ginnaaw bi ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallama ñoo ngi leen di niiw di leen siyaare di leen ndokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nanguñ suñu jaam yàlla te jéggal ñu suñu rëcc rëcc ñu di leen siyaar di leen ndokkeel ci bés yu sell yi ñuy dund rawatina màggal gi ñu doon dund démb muy màggalub daarul xuddus ñoo ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu fekk loo ñu ko ay ati ati at du jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu di ci ndokkeel mbokk yépp nag di leen ci ziyaare di ñaan yàlla dolli ñoo defal tawfiq ba nu mën a gën a jublu ci jaamu yàlla gi bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jël néew boobu ak ziyaar boobu rek di ko teg ci loxol suñu kilifa cheikh abdul ahad mbakke mu jot leen ci ko mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci biir liggéey bi yépp waaye tamit di ci ndokkeel bu baax al oustaz góor gi Diouf mi nga xam ne nii doon na ci def waxtaan woo am solo woo nga xam ne bii jëmale na ko ci kilifa googu muy Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké waxtaan wi am na solo lool yal na yàlla gën a dëgëral xam-xam bi bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu siyaare mboolem borom xam-xam yépp nag ak ñi nga xam ne ñi ñooy teewlu ak góor ñi ak jigéen ñi ñépp daal ñu ngi leen di siyaar di leen ndokkeel di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu doolu ñoo defal tawfiix di siyaare mu dungom ñu ngi lu bare bare bari di ko ñaanal yàlla gën ko dëgëral gën ko jàppale di jaay sayna muhammad sallallahu alayhi wa sallama waaye tamit ñuy siyaare suñu mbokk yi ci biir rawan rawatina ku mel ne Mouhamad Diouf ak Mbaye Diouf mi nga xam ne ñii ñoom itam wax dëgg ñu ngi jàpp ci liggéey bu baax a baax ñu di leen di ziyaare sunu maam jooju nga xam ne ji yàlla dafa dogal mu wàccab liggéey ñu ñaan yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko te xaare ko aljanna ci bijaay sayna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu doonoon soxna su baax soo xam ne si liñ xam ci moom wax dëgg yàlla mooy doonoon ab jullit doonoon ab taalibe bëgg lu baax bëgg ñëpp ñi nga xam ne ñi dañoo baax ndax saa boo fa masaa dem rek bu xamee ne yow mi da ngay yittewoo yooyu lu wàllu jëm ci jaamu yàlla ak yooyu ak di ca yëngu ndeysaan da lay daal di gën a tafaat ci boppam lool daal di lay gën a yittewoo lool daal di lay won ak mbëggeelam ak ak jafeelam ngoo xam ne gii bëgg na ko lislaam bëgg na ko diine bëgg na ko ak taalibe kon ñoo leen koy ziar bu baax a baax di ñaan daal fale mu jëm muy kër ak dëgg ga yàlla na ko fa yàlla teeroo xéewal ak jàmm ak i leer ak i teraanga yoo xam ne yi dooru tàqali ko moom mukk ak bépp jullit boo xam ne bii fekk na ko fa ak bépp jullit bu ko fa fekk yàlla defal ñu ko bi jaay seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñuy tàbbiwaat ci liggéey bi rek di jéem a jublu ci li nga xam ne lii moo fi rote ci ay laaj ñu tàmbalee ci laaj yi nga xam ne yi suñu mbokk mi suñu xaj bi suñu soppe bi ak Cheikh Ali Badara Ndiaye rotal na ko fi ci liggéey bi ñu di ko ziar bu baax a baax di ko ndokkel ci ak yittewam liggéey bi ak xam-xam bu rafet bi ak bëgg lu baax gi ak yittewu boo xam nga xam ne yittewoo na ko liggéey bi nga xam ne bii moom lañu yàlla boole ñu di ci yëngutu di ci jéem a liggéeyal islam di ci nam na bi di ci làmbatu sëriñ bi yàlla na ci yàlla dajale ak ngërëmam ak ngërëmal sëriñ bi di jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom sëriñ Aliou Badara Ndiaye day laaj xukmu xiraatul quran bi xayril arabiyati fi salaati aw xayriha day laaj ki nga xam ne kii day julli di jàng alxuraan ci weneen làng woo xam ne wi du làngu arab wala muy jàng alxuraan ci leneen fu mu mën a doon te maanaam langue ba nga xam ne moom la koy jànge daal doonul langue arab muy laaj julli googu lan mooy atte ba dañ koy wax ne ko fama kaana bil faransiyati aw xayri al arabiyati min al lughati fa laysa bi qur'anin boroom xam-xam yi daal li ñu d'accord te teg ko ci wàllu alxuraanu karim mooy alxuraan weneen langue wuñ ko mën a yóbbu moo xam langue bu mën a doon budul arab ne ne su boobaa maanaam doonatut alxuraan maanaam lam ci bëgg wax mooy ci kaw nii mën nañ koo yóbbu ci weneen langue ngir ñu xam ko dégg ko waaye bu dee ca baatin bala moom maanaam baatin ab alxuraan ba moom nekkatu fa mooy fa laysa bi qur'aan yi lay wax ne maanaam bu boobaa doonatut alxuraan wala yatarattabu ala xiraatihi sawaabun sawaabu man xara al qur'aan ne ne teyit ki nga xam ne kii dafa day jàng alxuraan ci traduire googu xam ne gi dañ ko traduire rek ne ne bu dee ci langue woowa rek la sax di ca jàng alxuraan ne ne du ca am yoolab ki nga xam ne kii day jàng alxuraan original ji nga xam ne ji mooy arab bi mooy li mu bëgg a wax daal mooy ki nga xam ne kii mënta jàng alxuraanul karim ñu traduire alxuraan ci weneen langue wu mën a doon maanaam su ko dee jàng ca langue wooyu ngir bëgg ca yool ne ne maanaam maanaam du ca am ab yool bal jumhurul ulama ala adami jawaasi xiraatil quran bi xayril arabiyati daaxila salaati aw xaarijiha su ko defee lim laaj muy jàng alquran ci weneen langue wudul arab ci biir ak julli boroom xam-xam bi yépp dëppoo nañ ci ne kuy julli di jàng alquran di ko jàng ca weneen langue woo xam ne doonul arab maanaam julli googu baaxut ne na itam bu fekkee ne da nga doon jàng alxuraan ngir bëgg ci ab yool wala nga jàng alxuraan ngir di ca ñaan wala nga di ko ñaanal nit ne na su booba it maanaam bu fekkee ni alxuraan jooju dañ ko traduire nga di ko jàng ci beneen langue ñaan googa du baax maanaam du doon ñaan goo xam ne gi gu ñuy nungu la daal ne faman ata bi tarjumatihi fi salaatin badalan anil xiraati lam tasix salaatuhu ba tey muy gën a fedd rek ne képp koo xam ne gi danga jël alxuraan joo xam ne ji dañ ko traduire ngay julli noonu ñu traduire alxuraan ja nga di ko jàng ci biir julli gi ne ne julli googu wérut wa bihi xaala jamaahirul ulama minhum malik wa ahmad te ne wax ji nag boroom xam-xam yi moom lañu wax teyit dañ ciy gën a ràññi ku mel ni imam malik ak ahmad ibnu hanbal ñoom ne nañ maanaam képp koo xam ne kii da ngay julli wala ngay def leneen loo xam ne lii da nga koy sàkku ci alxuraan te ngay ba nga koy jàng ci weneen la nga ko jànge woo xam ne wow arab la daal ne ne su boobaa bu dee julli la julli googu wérut waaye itam bu dee leneen nga ci jubli ngir am ca ak fay wala nga di ca ñaan ne ne su boobaa yow bu boobay ba lool yi tamit maanaam doonu loo xam ne lii lu jub la lu ñuy nungu la bu ko defee net wala ne na wala yajuusu ibdaalu lafziha bi lafzin arabiyyin ne ne kon alquranul karim daal bu fekkee da ngay julli wala nga di ko jàng ngir di ñaan wala nga di ci ñaanal kenn wala nga di ko jaamoo yàlla maanaam bëgg ci ab yoon ne ne langu araba moomu maanaam doo ko changé di ko jànge beneen langu wudul arab kon ba tey muy wax ne wa tarjumatu tajuuzu li ifhaamil muxaatabi bila nizaa'in bayna al ulama ne ne nag terew ñu alxuraan yi ñu di ko traduire ci weneen langue ngir keneen koo xam ne ki déggut langue arabe yi man koo xam mën koo dégg loolu moom ne ne maanaam may nañu gum neex mën nga koo def koo xam ne ki jàngul arab te xamut arab waaye xam na weneen langue ñu mën ko koo traduiral ngir mu dégg li alxuraan di wax ne ne loola moom maye nañ ko boroom xam-xam yépp d'accord nañ ci loolu mën naa nekk waaye daal lañ cay bañ mooy nga di ko def ci julli wala nga jublu ca di ca wutab yool ak yooyu su boobaa moom arab bi rek mooy tax nga mën caa am yool boobee xaal imaamu shaafi'i yajibu ala kulli muslimin an yataallama min lisaanil arab ma yabluxu juhdahu fi adaa'i fardihi fi ma warada taabudu bihi fi salaati min alqiraati wal azkaari li annahu laa yajuusu bi xayri alarabiyati imaamu Shafii ne ne dafay war ci jullit bu mu mën a doon lu mu sàggan sàggan mu jàng ci làmmeñu arab loo xam ne lii dina ca góorgóorlu ba lépp loo xam ne lii moom la war a jaamoo yàlla rek ci li nga xam ne lii mooy ay farataam la mën koy jàng ci làmmiñu arab bi waaye tamit rawatina bu fekkee ni day julli mu góorgóorlu ba mokkal fatiha ci fatiha joo xam ne jii ci arab la koy jàng waaye tamit ay saar yoo xam ne da ko cay teg lum néew néew mu doon ay fa ay saar yoo xam ne yii ci làngu arab bi la koy jàng ne ne sax bu fekkee ni da nga doon sikkar itam ngir bëgg a jëriñ ci sikkar soosee da nga war a fexe sikkar boobu ngay sikkar maanaam mu doon làngu arab ndax boo jëleen aw wérdu masalan wala sikkar wala lu mu mën a doon muy tudd yàlla nga di ko tara diire ci weneen làng ne ne su boobaa bu dut arab maanaam du baax maanaam njariñ la nga xam lii moo ci war na am ne ne doo ko am ndaxte ne ne du yell duñ may nit ki muy julli wala muy def ay zikkar wala ay wérdo yoo xam ne da koy wax ci yeneen lango yoo xam ne yi doonut arab xaala sallallahu alayhi wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima kon dañ ci gise ne lii tax yonent bi noonu dafa war ci jullit bu nekk nekk farata ci moom mu sàkku xam-xam moo xam jullit bu góor la wala jullit bu jigéen ne ne lu mel nii moo ko sabab kon nit ki jéem yàlla da ko baaxee def ak leer ci xolam mu doonab jullit daal te li nga xam ne lii moom la ñuy jaamu yàlla mooy li gën te mooy lislaam te mooy alxuraanul karim te it yonente bi nga xam ne bii moo gën ci yonente yëpp moo ci mujj moo indi diina ji nga ji nga xam ne ji moom la yàlla mujj a wàcce ci kaw suuf te moom la bëgg nu jaamoo ko ca ne ne diina yooyu muy alxuraan arab la te yonente boobu itam langu arab la doon wax moo tax jullit bu mu mën a doon lu mu lu mu lu mu néew néew da nga war a góorgóorlu ba xam ci arab bi loo xam ne lii di nga ca mën a jàng alxuraan ja waaye itam boo cay def ay wird ak azkar muy ay zikkar nga mën koo def ci langu arab boobu nga xam ne bii mooy alxuraanul karim te it mooy langu yonente bi nga xam ne bii moom la yàlla tànn mu gën ci yonente yi nga xam ne ñoo jàll yépp mu ne waman xara tarjumatal quraan yi li yataallama ma fihi min ahkaamin wa mawaisa fa innahu yujaru insha allahu ala hazihi niyati ne ne nag koo xam ne kii dafa dafay traduire alquranul karim ngir jàng ko ngir xam la nga xam li moo nekk ci attey alquran ak la nga xam ne li moo ci nekk ci ay waaraate nag ne ne su boobaa ki def loolu moom dinañ ko fay ndax yéene ji nga xam ne ji moom la ca am ca traduire boobu mu traduire alxuraan ji ngir maanaam xam atte yi nga xam ne moom la alxuraan teg waaye itam xam xam mawaïs muy waaraate yi nga xam ne moo nekk ci biir alxuraan ji ne ne su boobaa yéene jooju mu ca am dina tax noonu mu ko traduire dinañ ko ca fay te ne ne fa inna talabal ilmi ibadatun yusaabu man faalaha ibtixa wajhillah ndax ne ne sàkku xam-xam moom fànn gu mën a doon su fekkee ni nit ki da koo sàkku te yàlla moo tax mu di ko sàkku rek su boobaa dinañ ko cee defal ab yool boo xam ne bii dina ko jariñ kon ki koy traduire ngir dégg ko nga nag ngir xam ko su boobaa moom dina am yool waaye lañ cay bañ dal mooy mu di ko jullee wala mu di ca def ak jaamu yàlla fal luxatul arabiyatu afdalul luxaati ala al itlaaqi fa hiya luxatul quraani wa luxatu saydi nabiina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dane kon nanu góorgóorluwaat ci jéem a xam langu arab bi ci li nuy jaamu yàlla ndax ne ne langu arab bi kan moo gën lang wu mën a doon woo xam ne bi doonut ala arab ci lang wu mën a nekk ci kaw suuf ndaxte ne ne mooy lang yoo xam ne lii moom la yàlla tànn wàcce ci alxuraanul karim te it mooy lang yoo nga xam ne bii ki nga xam ne kii moom lañ wàcce ci alxuraan muy sayyidina Muhammad moo doon aw langa moo doon ko ca wax yàlla daal di wax ne nazzala bihi ruuxul aminu ala xalbika li takuna minal munzirina bi lisaanin arabiyin mubinin gis nga ci ne ne li tax ñu war a fonk arab bi jàng ko xam ko ba mën ci jàng alxuraan mën ci jaamu yàlla mën ci zikkar ne ne alxuraan jii daal ar ruuxul amin muy jibril ne ne yàlla ne ne moo ko wàcce yow muhammad ci sab xol ngir yow nga bokk ci ñi nga xam ne ñi ay xuppaati kaj lañu waaye bi mu koy wàcce ci wet mu indi la ko ci langu arab wu leer woo xam ne bii langu arab la waxoon ne bii dara raxu ca kon daal laajam boobu mu jëkk a laaj muy jàng alxuraan ci weneen lang bu dee julli la julli googa du baax bu dee ni dem danga ca jublu ak jaamu yàlla ngir ñu yoola def ca ab yool ñu defal la ci ab yool su boobaa itam du baax waaye itam bu fekkee ne da nga doon zikkar wala nga yor wirdu woo xam ne bii da nga caa bëgg ab yool wala nga am loo ciy jublu ngir bëgg koo am boo ko jàngee ci weneen langue woo xam ne bi langue doonul langue arabe it su boobaa itam du baax waaye tamit terewuñu ñu nga jël alxuraan traduire ko ci weneen langue woo xam ne bii moom nga ko mën a déggee ngir nga dégg alxuraan ji xam li muy wax xam àtte yi xam waaraate yi nga xam ne moo ca nekk su boobaa moom loolu moom may nañ la nga def ko yal na yàlla dala defal tawfiq beneen laajam bi mi ngi laaj xukmu tashahudi man adraka al imaama fi rakaati al axirati min alsalaati rubaayati dafay laaj taa yi nga xam ne yi ki nga xam ne kii julli goo xam ne gi ñeenti rakka la ko la doon julli googu ñetti rakka ya da ko raw ba mu dese ci benn rakka bu mujj ba dafay laaj moom kon ay taayaam nan lay war a demee moom suñ Aliou Badara Njaay kon dañ koy wax ne ko defe naa am na fatwa buñ fi doon wax ci nit ki bu ko julli rawee julli goo xam ne gi julli mbooloo la su imam salmalee maanaam nan lay war a mën a feye ak julleem ki nga xam ne kii daa dikk fekk julli goo xam ne kii ñeenti rakka la mu am ca benn rakka te mooy rakka bu mujj ba moom kon benn rakka la cay am su imam salmalee day jóg julli ab rakka boo xam ne bii su jógee di taxaw du ca wax allahu akbar waaye day jàng faatiha rek aku saar bu fekkee ni julli yàllu la mu yàllu ko bu dee julli gu ñuy biral la mu biral ko daa di toog taaye ab taay boo xam ne mooy taay bu njëkk ndax taay bee mu doon ànd ak imaam ja imaam da ko gàllankoor ba maanaam du jóg mën a dem loolu tax da koy topp ci taay boobu su ko defee day mel ni day dugg ci ñaari taay waaye mooy taay bi nga xam ne bii moo jëkk ci ak julleem tax mi ngi doog a am ñaari rakka su taaya taayam boobu moom daa di jógaat jàngaat faatiha aku saar bu dee ni dañ koy biral jullit biral la mu biral ku ba tey bu dee ni jullit yàlla la it mu yàlla ko daal di jógaat jàngaat faatiha ku saar daal di toog daal di taaye daal di dog a sëlmal kon gis nga ko da ngay daal di gis ne kon julli googu maanaam am na ci ñetti taaya ndax am na taaya boo xam ne bii da ko ànd ak imaam ndax imaam da koo tënk waaye itam ñaareelu taayam ba mu toog ko taay ko muy premier taayam kon bi mu bi imam salmali ba mu jóg ba julli ñaareelu rakkaam muy doog a taaye taayam bu njëkk boo ko boolee bi mu ànd ak imam bi muy ñaar ak taayam bu mujj bee nga xam ne bii moom la war a taaye kon daal ki benn rakka boobu raw dañuy seetlu ne dina am ci julli gi woon ñetti taaya muy benn bi mooy bi ko imam bi gàllan gàllankooree ba du mën a jóg day toog ba imam taay ba sël mu doog a jóg ak taay bu njëkk boobu nga xam ne bii moom la war a taaye ak ñaareelu taay boobu nga xam ne bii moom lay taaye kon mu daal di am ñetti taay ci biir julli googu nga xam ne gii ñetti rakkaay la ko raw nga xam ne benn rakkaa ba dong la ca am ñetteelu laajam bi muy suñ Badara Njaay ba tey day laaj xukkumul ittijaari bil wadiyaati day laaj lan mooy atteeb alal ji nga xam ne ji dañ la koy dénk nga di ca yaxamtalu maanaam nga di ca jaay di ca wut bénéfice dañuy wax ne iza awdaa indaka ahadun wadiatan fa laysa laka tasarrufu fiha illa bi idnihi lañ ne bu la nit dénkee alal moo xam alal ji mu mën a doon daal rawatina bu dee xaalis la ne na duñ la may nga di ca def dara lu dul ni da nga ca diisoog kooku nga xam ne kii moo la dénk alal ja bam dëppoo ca ak yow nungu loole nga xam ne lii moom nga ca diisoog moom ba ngeen d'accord ca kon nit ki bu la dénkee alal boo ca bëggee def commerce maanaam muy yokku léegi da nga cay diisoog moom ba xam dina ko nungoom ndéet su ko nungoo su boobaa yow mën nga caa def commerce waaye tamit wàllu bonus ba it war ngeen caa waxtaan ba xam yow yooyu moom bonus bi wala dangeen koy séddoo wala moom mooy moom bonus bi mooy moom bénéfice bi may bëgg a wax bénéfice bi laay bëgg a wax bu ko defee wa alayka an tahfazaha fa iza tasarrafta fiha bi ghayri iznihi fa alayka an tas tas miaho ne ne nit ki bu la dénkee alalam alal jooju danga ko war a sàmm dencal ko ko boo ko leneen loo ca def nag loo xam ne lii ba nga koy def maanaam waxtaanoo ci ak moom na nga xam ne mën nga ko àq joo xam ne jii loola danga ko ko war a jéggulu loola nga ca def nag ne ne soo ko ko xamalee jéggulu ko ko mu jéggal la ko su boobaa dara du la ca topp waaye tamit su fekkee ni da nga caa def lu mel ni da nga ca doon def am njaay ba bénéfice ba ba bénéfice am ca bénéfice boobee su fekkee ni bi nga ko ko xamalee xamal yëgal na la ne moom d'accordu ca bëggutoon nga def ca loola ne ne su boobaa bénéfice boobu nga xam ne bii moo ca am maanaam moom borom alal ja moo koy moom su ko defee boroom xam-xam yi dañ cee wuute nag ci wàllu boo yoree alal jooju di ci def commerce ba bénéfice am ca dafay am ñoo xam ne ñoom dañ ne su boobaa bénéfice bi moom boroom alal ca moo koy moom waaye tamit dafa am ñoo xam ne dañoo wuuteeg ñooñu ne bu fekkee ne danga caa waxtaan ak boroom alal ja ba ngeen déggoo ci lu ngeen di doxali bonus bénéfice ba su boobaa noonu rek ngeen koy defee su fekkee ne nangu na nga di ca jaay ne la léegi man jëlal bonus bénéfice bi mën nga koy jël su boobaa mën nga jël bénéfice ba su la nee itam nañuy séddoo bénéfice ba noonu ngeen ko war a defee su la nee tamit soo ci amee bénéfice kon maa koy moom su boobaa kon defe naa danga koy bàyyi bénéfice ba. su boobaa kon bañ caa commerce maanaam da lay gën a noppal kon daal dafa am ñoo xam ne ñoom lañu wax rek mooy bu ca bénéf bénéfice amee moom boroom alal jaako moom ñii ne da ngeen cee waxtaan su ngeen ca juboo ca bénéfice boobee su boobaa nu ngeen koy doxale su boobaa charia may na la nga doxale ko noonu nga xam ne nii ca gën waxtaan ba déggoo ca beneen laaj bi ci topp soxna Cubba Njaay moo ko fi indi ñoo ngi koy ziar di ko ndokkeel moom soxna si di ko xamal ne ko gëj nañ koo dégg xam na comme jafe-jafe yooyu ñuy am léeg-léeg rek ci wàllu jamono ji léeg-léeg mu xatak portable itam léeg-léeg moom day xaw a jafe ci yenn ti jamono yi waaye moom ku bëgg liggéey bi la ku ko yittewoo la ku ku ko sopp la ku bëgg lu baax la yal na ko yàlla defal tawfiix defal ñu ko bi jaay sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon soxna si tey moom dafay laaj an naflu asna al xutbati maanaam day laaj àtteeb naafil la ci fekk imam bi yéeg na ci kaw minbar ba day xutba loolu day def nañ ci ay fatwa yu bare bare yoo xam ne yoo xam na bu ñu diglu woon waxtaan yi jàll dinañ ko fa mën a amee waaye dañ koy wax rek ne ko imaam daal bu tàmbalee di xutba boroom xam-xam yi dañoo wóore ci ne ndax foofu mënees na fee naafila wara mënees su faa naafila ñenn ñi dañu ne nit ki moom saa bu duggee ci biir jàkka jamono ju mën a doon bu dee ajjuma la itam mu fekk imaam bay xutba su boobaa daa war a julli ñaari raka muy naafila mu def ko taxiyatul masjid te mooy nuyu jàkka ja ñeneen ñene daal nit ki bu ñëwee ci jullik ajjuma gi fekk imam tàmbali di xutba lim war a def mooy dafa war a toog waaye wërta naafila wërta wax war wërta def dara dafa war a toog rek diglu xutba ba nga xam ne bii moom la imam ba ba di xutba wax jooju nag muy ñi tere maanaam naafila ci jamono jooju nga xam ne ji imam mi nga xutba ñiñ ci gën a ràññee mooy imam Malik moom loolu la wax ngir mi nga xam ne mi mooy imam ngiram imam Malik te ñun moom lañu digalan ñu topp ko daal moom imam Malik dafay wax ne nit ki su dikkee fekk imam di xutba daal na toog te bu mu naafila waaye tamit yeneen boroom xam-xam mooy booy xool la ca ëpp sax nag ñoom dañ ne nit ki moom saa bu duggee ci jàkka ji rek maanaam war naa naafila julli ñaari rakka lum néew néew balaa toog loola nag lay sabab sa mooy waxan nañ ko ci fatwa mooy dafa am ñaari xaddis yu ci rot yoo xam ne yii dañoo wuute su ko defee nag wuute googu am ci ñaari xaddis yooyu li liñ ci gëstu jàngaat ko ci fiqh jàng ko ci fiqh bi mooy xaddis bu njëkk bi nga xam ne bii yonent bi dafa digal leen waajo ñuy wax alxatfaan alxatfaan yi mu ñëw fekk yonent bi di xutba mu toog bañ a naafila yonent bi ne ko jógal nga julli ñaari rakaato gàttal ko ñenn ñi foofu ci xaddis boobu la ñuy tegtaloo ne kon nit ki bu ñëwee daa war a naafila beneen xaddis bi ci des nga xam ne ci la imam Malik tegtaloo yi tamit ngir ne nit ki bu ñëwee fekk ñuy naa ñuy xutba daa war a togg naafila mooy dafa am waa yu ñëwoon di jiggat sàppe yi yonente bi ne ko toogal yaa ngi lor nit ñi te digalu ko mu naafila foofu it nag imam Malik dafay gis ñetti gis-gis muy xaddis bee nga xam ne bi yonente bi da ci digalan waa jooju ne ko jógal nga julli ñaari raka benn bi mooy imam Malik dafa gis ne xadis boobu maanaam dafa raaf maanaam dafa mansuux maanaam doxatu maanaam jàllatut maanaam benn ci gis-gisat imaam Malik moom loolu la ca gis ñaareel ba it ñu ne kon mën naa am xadis boobu moom dafa nekk loo xam ne lii wérut moo tax imaam Malik maanaam nunguutu ca sukkandiku ñetteel ba it ñu ne xañ na imaam Malik dafa gis lu gën a dëgër xadis boobu nga xam ne bii moo rotan ca ñuy digleeg naafila ci biir ak xutba ñett yi daal lañ ne moom la imam Malik sukkandiku ba tax na maanaam muy tere koo xam ne kii bu imam di xutba bu ñëwee day naafila muy benn mën naa am xadis ba dafa na sax mooy xadis bii mu tere waxee waaji ne ko toogal te digalu ko mu naafila maanaam moo dindi xadis bee wala imam Malik jàpp ne xadis bee wérut wala imam Malik jàpp ne dafa gis loo xam ne lii mooy gën a dëgër xaddis bi nga xam ne bii ci la yonent bi doon digal waaye ne ko jógal nga naafila kon daal xam naa bu nu tënk woon moo ñu gën a noppal ci ñu tënku ci ngiram imam Malik rek ba suñu duggatee ci juma daal fekk imam nekk ca kaw minbar ba di xutba nu toog diglu ndax xutba boobu kat maanaam ci biir julli gi la bokk ndax mooy xaaju julli gi te defe naa ne toog a diglu su boobaa mooy nekk farata mooy nekk li nga xam ne mooy war kon dikkari naafila kon toogan diglu xutba ba maanaam da koy gën a yoy ndax jéem xutba bi ci julli gi la bokk te boo ñëwee di julli loolu ak naafila rek lay doon kon dañuy jàpp ne toogan diglu xutba ba mooy gën a yoy ndax tàmbali nañ julli gi àjjuma gi ndax xutba bi ab xaaj la ci jullit ajjuma gi beneen laaj bi ci topp ak cheikh abdul ahadi Diop moo ko fi rotal sama xarit boobu sama soppe boobu maa ngi koy ziyaar di ko ndokkeel bu baax a baax namm naa ko lool ñoo ngi koy ziyaar bu baax a baax a baax Cheikh Abdul Ahad dafay laaj xukmu man ishtara bidaatan bi mablaghin ma wasdada hadha al mablaghu athna ixraaji zakat dafay laaj ki nga xam ne kii ab jaaykat la jënd marchandise waaye marchandise moom bi mu ko jëndee jaaye gu ko teg ko ne léegi mu dem ba génne asaka jot ci moom muy génne asakaam ne ne kon marchandise moom nga xam ne mii da koo jënde woon ci ab som boo xam ne bi nangam laan masalan mu jëndeen ko fukki junni jamono ji muy génne asaka léegi marchandise moomu mu jëndeen fukki junni léegi muy jar léegi fukki junni ak ñaar defe naa noonu la wax ni mu ko misaale ndax na mu ko misaale mooy jënd na marchandise moo xam ne nii jamono ji mu koy jënd ñeen fukki junni la doon jar mu teg ko ne jaayagu ko waaye jamono ji muy xayma ngir génne asagaam dafa daldi wérat cëng ci marché bi ne lee mu jënd woon ñeen fukki junni kat bu deman tey jii di ko jëndiwaat ñeen fukki junni ñaar la koy jëndee muy laaj kon marchandise moomu suy xayma njëgg ndax day xayma ñeen fukki junni yam ko jënde woon rek wala da koy xayma ci njëg gi nga xam ne gii moo mujj siiw nii ci marché bi muy da koy xayma ñeen fukki junni ak ñaar yi nga xam ne ni moom lay jar léegi loolu mooy laaj bi kon loolu lañ ko ci tontu mooy kooku jënd marchandise mi di xayma marchandise yi nga xam ne yi moom la jënd te jaayagu ko ngir mën a génne asakaam marchandise moom ci mën a doon lam ko jënde woon su koy xayma moom la koy xaymaa waaye du sukkandiku ci prix bu mujj bi nga xam ne bii moom la marchandise ma di jar di ko ca xayma déedéet kooku jëndee marchandise ma ñeen fukki junni su koy xayma ñeen fukki junni lay bind ne leekat nangam nangam marchandise mais ñeen fukki junni laa ko jëndeen kon ñeen fukki junni lay bind marchandise mais fukki junni laa ko jënde woon kon fukki junni lay bind bind ba kera marchandise mépp di mat waaye du sukkandiku ci njëg gi nga xam ne gi maanaam moo mujj ñëw ci marché bi lépp lu mu jëndan daal bu koy xayma da koy xayma ca njëg ga nga xam ne gi moom la ko jënde woon waaye du ko sukkandiku ci njëg gi nga xam ne gi moo mujj feeñ ci marché bi kon loolu itam laaj bu am solo la boo xam ne bii na war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ndax lu jara leerlu la ndax yëf yi mooy fiqh dafa sew sewaay boo xam ne bii lu baree bari dañ ko war di leerlu di ko jéem a xam jéem danoo bëgg a dund suñu diine lislaam ji buñ ci xeeb benn laaj waaye itam buñ ci naw benn laaj lu mu ci mën a doon rek xañ na du ñàkk ne boroom xam-xam ya am na luñ ci wax loo xam ne di am na ñoo xam ne moom xam nañ ko sax nag waaye dañ cey bëgg a dimbali ñeneen ñi nga xam ne ñu xamuñu rek su ko defee loolu lépp day daal doon loo xam ne lii lu am solo la yàlla nañ ci yàlla doole defal tawfiq bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam beneen laaj bi ci topp Sëriñ Fallou Gueye moo ko fi rotal Sëriñ Fallou Gueye ñoo lay ziar bu baax xam naa présentation bi nag dafa xaw a des ndax Fallou Gueye rek la wax man ràññeeguma man Fallou Gueye la am na Fallou Gueye mu ma ko teg nag ci ni may dégg kàddu gi ndax am na sama dongo bu ma doon jàngal fële ca daara ndondal ja comme ni mu waxee xaw ma moom la am déet kàddu gi daal xaw na ma koo niru moom laa ko teg waaye bu mu ci mën a doon daal ñoo ngi koy ziar di ko ndokkeel bu baax a baax di ko ñaana yàlla dolli noo defal tawfiix moom dafay laaj lu jëm ci wàllu xunuut ndax ne ne moom dafa am xunuut goo xam ne gii moom lay xunuutee te gis na ne am na ñeneen ñoo xam ne ñi maanaam dañuy xunuut xunuut gu wuute googu muy xunuut waaw maanaam xunuut moom dafa bari ay xeet su ko defee xeet yooyu nga xam ni moom la borom xam yi teg mu jëm ci wàllu xunut goo ci jël di ko xunute rek bu boobaa xunut googu jàll na ndaxte lan mooy xunut mooy alxunutu shar'an annahu ma shuri'a min ad-du'a fi salawatin muayyanatin wa bi sifatin muayyanatin wa yakunu fi rakaati al-axirati min as-salaat nee na xunut mooy loo xam ne ni sharia da koo teg mu doon ak ñaan ñu ko ñu koy def ci ay julli yoo xam ne julli yu ñu ràññe la muy ay julli yoo xam ne dañ ko cay def moom xunut ak it di ko defee ci aw melokaan woo xam ne bii melokaan wu ñu ràññe la ne maanaam lii mooy xunut waaye tamit moom xunut dañ koy def ci mujjantal ak julli yooyu nga xam ne yi moom la ñuy julli ngir di ca xunut kon nee na daal loolu mooy xunut xunut charia da koo teg mu nekk ak ñaan goo xam ne gii nag ci ay julli lañ koy def ay julli yoo xam ne yii dañu ko caa dañ ko ràññee ne julli yi dañ ci xunut waaye tamit dañ koy defee moom xunut ci aw melokaan woo xam ne bii melokaan wu ñu ràññee la muy maanaam am na ay xeet yu xunut yu xaw a takku yu xaw a bari waaye tamit xunut mi ngi nekk ci rakka bi nga xam ne bii mu mujj julli nga xam ne bii moom ngay xunuutal su ko defee dañ na siiratu duwaa il xunuuti mooy lan mooy waradat iddatu siiri li duwaa il xunuut ani saxaabati ne ne baatab xunuut nag ay xeet la maanaam ay façon yu bari maanaam xunuut ay xeet yu xaw a takku la maanaam bari na daal ndax ne ne saxaaba yi jële nañ ci ñoom ay baati xunut yu bari bari yoo xam ne yi dafa wuute bokk na ca maaruwiya an alxasan ibni aliyin annahu xaala allahumma allahumma hdini fi man hadayta wa aafini fi man aafayta wa tawallani fi man tawallayta wa baarik lii fi ma aatayta wa xinni charra ma xadayta fa innaka taqdi wala yuqda alayka wa innahu laa yazillu man waalaaka wala yaizzu man aadaaka tabaarakta rabbana wa taalayta loolu benn la ci xeeti xunut yi nga xam ne yii moom la ñuy mënees na koy xunute ci mujjantal ak julli amaan na geneen koo xam ne gi danaan allahumma inna nastainuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa naxna'u laka wa naxla'u wa natruku man yakfuruka allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa naxaafu 'adhabaka al-jidda inna 'adhabaka bil-kafirina mulhaqun loolu itam weneen xeetu xunut la woo xam ne bii kum jàppandi man nga koy xunut ak yeneen ak yeneen yoo xam ne boo ko gëstoo ci téere fiqh yi yi wax ci wàllu ju liggéey mën naa am di nga ko fa fekk kon ñaari xeeti xunute nga xam yoo xam ne daal mënees na ko xunute waaye des na yeneen yoo xam ne it bind nañ ko mu nekk ay xunut te mu defe naa fii mu na allahumma hdini fii man hadayta ne moom lay xunute googu baax na ci xunut yi la bokk waaye it allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika ba mu jeex moom itam xeetu xunut la koo xam ne gii mën nañ koy xunute ak yeneen yoo xam ne yii buñ ko gëstoo ci téere yi mën nañ koo am kon yàlla nañ yàlla doole defal tawfiq bi jay sayna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te nu nga ñu suñu jëf yu baax bi jay sayna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen jëf